ay simili yu néew ñu jox leen xibaar yu wér te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 ci yeewu askan bi di porte parole Pastef ak Sira Ndiaye bi nga xamante ni député la nekk ci assemblée nationale bokk fi nga xamante ni moom mooy Benno Bokk Yaakaar bu ñu sukkandikoo ci uh, Sira Ndiaye nee na Maître ak convoi am nañu fekk buntu këram daal di koy agressé daal di koy dóor dóor yu métti ba daal xëcc prit ba yóbbu ko nee na sax diggée ne ni moom dafay porter plainte waaye ki nga xamante ni mooy Maître Tall nee benn yoon boobu moo am te yoon bu fi nga xamante ni fi la jëmoon buntu kër Sira la doon jaar mënul woon jaar feneen fulul foofu waaye ginnaaw ba mu fa jaaree waa ñooñu ki nga xamante ni ñooy Sira Ndiaye dañu ko commencé di sànni xeer moom ak ay convoi am sànni xeer yu méttee métti loolu moo indi violence boobu ndax nee na ñoom dañu leen a tooñ ñu daal di riposter bu ñu fa jigee dañu dem ci ki nga xamante ni mooy Assane fay ki nga xamante ni mi ngi dëkk fële ca kër mbay faal ginnaaw bu mu duggee ca terrain ba daal di fay dugal ñamu mbaam site internet yu bëree bëri daal di koy wane ba ñu interroger ko mu daal di wax xalaatam waaye ñu ñuy wax ak yéen mi ngi nangu siin am na retour des parties ñu ngi ñuy wax naan dañu koy a déféré waaye naka ñu baree bari ñaawlu nañ ko ñuy rafetlu lañ ko ñenn ñi li tax ñu ñaawlu ko mooy jàpp nañ ñi waa ji nangu nañ ni dafa juum waaye tamit ña ko bàyyi mu daal di dugal ñamu maam bi ñoom tamit dañ leen a war a woo daal di leen enquête waru ñu sax rek moom kese daal di koy jël yóbbu ñi tax wala sax ñi xullee ba mu dugal ñamu maam bi Eh, ñooñu dañ leen war a ci kàddoom waxoon na ni moom xamul woon ni benn yoon dañ ko fay tere bu ko xamoon eh, du ko fa dugal a seen bii di Dakarnet jaaraju leen ci ay simili yu néew ñu jox leen xibaar yu wér te wóor les minutes de l'info